ñu yëggale fi nga xam ne foofu lañ tolloon di wax ci yitte ni mu amee solo ci dund jullit bi noonu ñu ko waxee tam ñu gis ne euh, yitte dafa am jokkoo bu am doole bu mu am digganteem ak ak bakkanu doomu aadama suñu waxee bakkan nag fii dañuy wax ci côté psychologie ci côté psychologie doomu aadama ndax euh, doomu aadama dañ koy yar luñ ko yarul mën naa am du ko xam kon dafa am lu ñuy tuddee responsabilité boo xam ne waajur moo ko moom ngir yar doomam ci yitte ndax li ëpp ci yitte li koy puuse ci doomu aadama ngir mu am ci doole lool ci wàllu maanaa lay doon maanaam doonul loo xam ne soo ko xoolee nii rek di nga ko mën a gis te lu ñuy togg ay at la kon loolu mooy day ànd ak ni ñuy yare xale bi bàyyi yi nga xam ne boroom yitte yu kawe lañ séentu nañ ci ñoom seeni doom am yitte ju kawe waaye dañuy wax ne nit lu mu amul du ko mën a joxe ñi nga xam ne amuñu yitte duñu mën a yar seen doom ci yitte ndax ñàkk gee xam mooy tax kon yitte dafa bokk ci liy mooñ xale bi ngir mu xam ko teel ko ràññee màgg ci ndax bu ci màggee benn la ci xeetu yariñ yi nga xam ne yu yu yu baax lañ yu efficace ni koy defee mooy dangay jëmbët ci xale bi mu mu teel a xam li ñuy tuddee taxaddi mooy day teel a xam defi defi defi mooy nga ne ko fële laa bëgg nga yegg fa waaye nag yombul jéemal mu daal di def foofu benn ci tomb yi nga xam ne da koy def objectif jëm fa nga xam ne da ko ci yar di ko xool di ko seetlu ndax mi ngi dox jëm foofu walla déet su fekkee jëmu fa nga jubbante ko mu jëm foofa loolu la ñuy tuddee yitte kon bokk na ci li nga xam ne waajur ameel na ko doom mooy mu yar doom ji ci mu jëmbat ci moom yitte jëmbat ci moom di ba lu mu xool nangu ko dëkk ak lu loolu rëy rëy day mujj sax amul dara lu baax wala lu am solo loo xam ne dana rëy ci bëtu xale bi foofu boo fa yeggee da ngay xam ne kooku di nga sént ci moom dégg nga mu def lu rëy lu am solo ci àdduna bokk na ci ni nga ko koy tàggate tamit mooy nga miinal ko mu mën a dékku coono mu mën a dékku coono ndax nit ki su fekkee ne jaarul fenn foo xam ne mën naa dékku coono duñu séentu ci moom mu doon boroom yitte ju kawe bokk na ci ñu def ci moom dogu dogu mooy ginnaaw bi mu xamee li mu bëgg mu dogu ne lee danaa ca yegg danaa ca yegg loolu la ñuy wax euh, a tanmiyatul bashariya ndax nit euh, nit nite gi moo tax ñuy wax nit nite la ñuy tuddee a tanmiyal bashariya maanaam doomu aadama dafa war a am dogu ba jéem dara sax yàlla dogalu ko benn yoon wala ñaari yoon ñetti yoon warta taxaw ne lii mënatuma ko mënatuma ko am war na cee dox di ci dox di ci dox giiru dundam ba ba mu koy mën a def loolu mooy yitte ndax bu ñuy jàng si développement boobu noonu tanmiya bashariya développement humain boobu da ngay da ngay jàng ñoo xam ne fi leen yàlla indi tey jéem nañ lu ëpp fukki yoon dégg nga loola sottiwul ñu dem ba defe ne dootuñu ko am loolu loolu fekk si leen loolu yitte moo koy maye nga xam ne ki koy def sax day mujj day yemale egg fi mu war a egg dégg ak bañ faa yegg waaye day jàpp ne doomu aadama la te da war dafa war a def dara rek bu bu eggee ci niveau boobu rek loolu yitte la yàlla dina ko dimbali. waaye bu fekkee dafa jéem benn yoon baaxul mu ne man dañ ma catu wala man aw ma sens wala man daal diw sàngam daal di wut xaajis daal di wut ku ko baare kooku du egg fi mu jëm fekk dogu gi moo des niñ ko yaree ci wàllu jikko moo des ci wàllu himma moo tax dangay gis ci doomu aadama yi ñoo xam ne dañ lay jaaxal lool ndax seen taxawaay ni mu amee doole ak ni mu rëyee ak ni ñu amee influence ci àdduna ni ñu amee influence ci àdduna dañuy mel ni dañ koy misaale ci arab al jabalu shaamix dañuy mel ni montagne wu mag a mag a mag a mag mën a yiir lu baree bari te boo gëstoo seen taarix da ngay xam ne yitte moo leen fa indi yitte yu bari moo tax ñuy egsi foofa ndax yitte ci may yi la léeg-léeg xam nga dafa bari lu ñuy jëfandikoo ay baat waaye mën naa am du leer léeg-léeg ñu ne diw sàngam dafa am mayu yàlla mayu yàlla yëtte la yëtte mayu yàlla la mu ko amul yëtte kay amul mayu yàlla nit fa muy yegg li ngay tudde al mawhibal ilaahiya dégg nga bu la neexee nga tudde ko yitte ndax baat yi ñun ñoo ci dëppoo di ko wax waaye maanaa yi moom leneen la bu ñu dëppoo ci ne képp ku jànkoonteeg nangam ak nangam ba egsi nangam kooku de am na itte ñun ñoo dëppoo ci baatu yitte bi boo demee ci beneen dëkk ñu tudde ko neneen ñeneen tudde ko neneen ñeneen neneen waaye li baat bi làmb ci biiram moo am solo ku taxaw taxawaay boobu am nga may bu ko defee ñii tudde ko mawhiba ñii tudde ko himma ñeneen tudde ko leneen rek waaye li am solo mooy am taxawaay bi am taxawaay bi naka noonu ngay gis ci àdduna ñoo xam ne duñu am ambition maanaam day mel ni duñu bëgg dara te loolu sunu boroom waxu ko diglewu ko sunu boroom li mu digle mooy doomu aadama fu mu toll nay bëgg dara fu mu toll nay def dara ndax loolu ci jaamu yàlla la bokk ci jaamu yàlla la bokk ah, euh, ki ma leen doon wax léegi mooy Jamal Din al Afghani bi mu waxee ne àdduna monde islamique bokk na ci li leen téye ñàkk ñàkk dégg yitte dafa bokkoon ne xam naa tam li tax ñu ragal euh, yitte mooy dañoo defee ne boo amee yitte da ngay am xaalis bu bari te boo amee xaalis bu bari day dox sa diggante ak sa boroom bi muy jubbanti déggin woowu mu ne leen xaalis bu bari ba benn la ci gàllankoor yi nga xam ne ñoo dekk diggante nit ak boroomam waaye ki am kàttan ak am itte mooy ki nga xam ne blocage boobu du ko mën a téye loolu du ko jaaxal du ko mën a téye dana ko mën a téye def ko fu neex sunu boroom loolu tamit ci ci yitte la moo tax euh, doomu aadama dafa nekk façon bu jafe bu jafee xam jafee xam ngi mooy li yàlla mooñ ci biiram dafa dafa yéeme dafa bari nit li mu am si capacité ak li mu am si force yaakaar naa ne buñ ko doon xool ci wàllum calcul euh, dégg nga lim ci exploité fi mu ne kenn mënu koo teg bët ndax tuuti ndax li nekk ci doomu aadama loolu nag bu nekkee ci boppu nit ki dina xam ne yitte munta ñàkk ndax lim defagul sax defagul dara war naa def lu ëpp loolu ndax yitte ci nit lay jóge te nit li ne ci biiram ci doole kenn xamagu ko nu mu toll lu bari la moo tax léeg-léeg nga yéem dara keneen ki du ko yéem mu dog lu tuuti ci moom yow mu nekk lu rëy ci yow seen ñaari yitte yi ñoo tolloowul seen ñaari yitte yi moo tolloowul looloo tax dafa bokk ci yitte nga gëm ne yow yaay defar taarix waaye taarix du la defar maanaam nit moom mooy defar histoire waaye histoire du defar doomu aadama liy dugal nit ci taarix histoire nit a koy liggéey te te ni mu koy liggéeyee mooy mu xam capacité yi nekk ci doomu aadama mu exploité ko kémtu lay kàttanam daal di daal di dugg taarix ñu tudd ko ci lu baax di wax lam defoon nangam ak nangam loolu moo fi indi àdduna ba fi ñu toll nii waaye ñi nga xam ne amuñu yitte jooju ñoom dañoo defee ne taarix mooy defar nit fekk taarix du defar nit dégg nga nit mooy defar taarix kon bokk na ci ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñu tàggat seen yitte dégg nga ci lu baax ñooñu ñu am solo lañ bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo doxal àdduna ci ni koy sunu boroom bëggee safaan bi tamit am na ñoo xam ne lañu ñu xam fañ koy jëmale du noonu waaye ñooñu duñu ay royukaay royukaay yi mooy ñi nga xam ne fi ñu koy jëmale baax na bu ko defee am na laaj bu am solo bu ñuy faral di laaj léeg-léeg nit nuyu kilifa mu ne ko luy sa yitte loolu baat bu ñu war a xool la baat bu am solo la luy sa yitte ndax yitte du lekk ak naan ak bànneexu kese waaye yik yitte mooy fexe ba taxawal dara fexe ba taxawal dara dafa bokk ci yitte kon nañu xam ne euh, képp ku yittewul wool ku yitte woowul mbirum jullit ñi sallallahu alayhi wa sallam dane kooku dafa mel ni bokkul ci ñoom kon loolu li muy firi mooy ñoom ñëpp duñu yem benn niveau faawu am ci ñoo xam ne ñooy yóbbaale ñi ci des man lam yahtam bi umuril muslimin fa laysa minhum looloo tax nga gis nit ñu bari seen dund gàtt lool ñu bàyyi fi taarix bu rëy lool loolu itte kese moo ko man safaan bi noonu nga koy gisee koo xam ne yàgg na fi lool ci ay at waaye du fi mën a bàyyi dara du ci mo du ci du ci yàlla ci moom la moom yàlla jox na ko doole jox na ko kàttan jox na ko xel waaye fi mu ko jëmale wala niñ ko yare niñ ko mooñe moo baaxul moo tax mënut a taxawal dara mënut a def dara waaye su ko gëmee rek faawu dina def dara ndax yàlla moo ko mooñaale ci moom kon islaam day dox ci dàq li ñuy tudde ak tayyeel ak yaafuus jamono ji nag mën nañ koo gën a wàcce lu mel nii téléphone yi si wàllum Euh, seetaan ay ay ay ay vidéo wala déglu ay son ni mu mën a yóbboo ci dundu nit ay waxtu yoo xam ne daanaka dootu ko mën a dabu loolu bokk na ci ñàkk yitte loo ci mën a xam li mu lay yàq léeg-léeg mooy ëpp bu ko defee ki baax dëgg-dëgg mooy ki ko mën a jëfandikoo ci ni ci anam bi gën a rafet kooku moo am ittee ndax loolu sunu borom dafa wax si al alquran ne alladina xul hal nunabbiukum bil axsarina amala am na ñoo xam ne ñi ngi liggéey waaye dañuy perte li tax ñuy perte allazina dalla saayuhum annahum eh, yaxsabuuna wahum wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa dañoo defe ne li ñuy def baax na te baaxul moo tax boo gisee xale muy jëfandikoo réseau boo xam ne la mu fay yàqule moo ëpp la mu fay jariñoo nga gindi ko jàppale ko kon ñu ngi taxawandi foofu in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum